baax suñu rakk suñu sëriñ Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Amine moo ko délégation cadre unitaire de l'islam au Sénégal yi mu ànd ak yépp ci turu Khalifa Ababacar Sall nga xam ne moom mooy président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi mais yàlla dogal nekku fi ci turu sama naatangoo yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Déthié Fall président PRP Malick Gakou grand parti léegi la fi jóge Cheikhna na Tidiane Youm toogal fii Serigne Moustapha Sy du PUR Seydou Bokoum MDRS mu ngi nii ak euh, ñoo ñoo fi nekk ñooy délégation de la coalition sëriñ bi ñu ngi yóbbante bu baax su nuyoo ak ziar kilifa diine yi ci réew mi yépp nga xam ne mën nañu wax ne yéen leen fi toogal tey di tànku jàmm ci réew mi rek yàlla na ko yàlla def am mbégte bu baax nag ci ndaje mi ak kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkate ngeen ko fi li nga wax mooy loolu adduna bi dafa tëradi adduna bi dafa nekk ci danger xam nga danger àdduna mënul weesu léegi nit ñaa ngi wut fu ñuy dem dëkk ci yeneen planète rawatina ñun li nga xam ne moo ñu wër muy réew yi nga xam ne moo wër senegal ñu ngi ñaan yàlla yàlla def fa jàmm wante Sénégal bokkul ak ñooñu de Sénégal bokkul ak ñooñu. ndaxte lu àdduna tëradi tëradi ak lu mu yàgg-yàgg ñi ngi gis ne senegal loo ci mën a dégg ak lu coow am am am nañ ñoo xam ne ñi yàlla may na leen buñ jógee réew mi dal kon yàlla na yàlla yàgg leen fi te may leen wér liñ ko waxee nag ñun yàlla seede na ne ay nitu jàmm lañu coalition bii di yeewu askan wi man bu fi nitu jàmm nekkoon du ma fi toog te loolu dama ko mën a seede muy seen waxi biir muy seen waxi biti li fi nekk ci réew mi nag nga xam ne ñun ndono la du suñu mérite defuñu ko mag ñi ñoo ko liggéey ba mu egsi fii nekk ci seen loxo ci wàll wi nekk suñu loxo ci wàll wi loolu ñun li wala fi wax am nañu xel tuuti dañuy yaakaar na dañuy yeew rek ñu nasaxaay ko taal réew mi et mënuñu ko sax surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk opposition li leen wax sànq ñun amuñu armée amuñu gendarmerie amuñu police ASP sax amuñu ko loxo neen lañu yore kooku nu mu mënee def violence mënul am c'est pas possible c'est impossible que violence jógee ci opposition décc mi ngi ko leeral sànq parce que y a la transmission des images li mu wax sanq léegi-léegi bu ñu demee rek nga gis ñoom ñu xataraayu ak gendarmerie wala police et cetera ñu ne ñoom ñooy def violence mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk pouvoir ni mu ko waxee ñoom bu ñuy doxantu mu ñuy def leneen mais kenn du leen attaqué kon mënul am image de violence mais ñun bu ñu génnee suñu buntu kër sax ñu attaqué ñu ñu ne nitu fitna lañu yàlla xam ne duñ nitu fitna jàmm rek lañ bëgg ci réew mi mais jàmm ñaar koy séq jàmm ñaar ñoo koy séq bu fekkee ne moom comme li mu wax Macky sàll moo yore kaaraange bi lu ko neex mu def ñun amuñ sañ-sañ dara te luñ jóg mu dal suñ kow li ñuy wax ñu résistance rek lañ mën a def. ak suñu loxoy neen moom mi nga xam ne nag moo yore cëggal guyam te moom moo yore lii indi jàmm ci réew mi wax nañ ko sànq mooy doxal élection mu jaar ci yoon wax justice na doxal yoon mais bu ko defee après chacun prend ses responsabilités sëriñ bi yéen ñii wax dëgg yàlla xam nga xel mënul daj ñu ne sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg te wér woote na jàmm ci réew mi ngeen taxawal fi ay tànkam ñu ne ñun dañuy gàntal xam nga loolu mënul am mënoo ci réew mii ñu ne sëriñ kër Si Mansour yàlla yàlla yàggal ko fi may ko wér ñu bokk ci njabootam mu yëkkati kàddu nde doxal leen jàmm ñu gàntal mënul am mënuñ koo def sëriñ Cheikh May Ñas mënuñ koo def sëriñ madaani Taal mënuñ koo def sëriñ Bekaay mënuñ koo def kenn ci ndite diine yi moo xam Ceneba la moo xam Laayeen la parce que dañoo xam ñoom lu ñu doon ak xam li ñu tekki ci réew mi ak lañ mën ci réew mi kon nag ñun wóolu nañ leen te ànd boo gis nag wóolu moo koy yàggal waane Macky sàll ci boppam ñun wóoluwuñu ko may leen ngeen may ñu loolu ñun wóoluwuñ Macky bay signé ay charte ak moom parce que lépp loo mos a ak moom xëtt na ko bu toogee fii def déclaration wër àdduna yépp ne sama màndaa bi juróom-ñaari at la woon mais léegi danaa ko def juróomi at yeewu dem li nga xam ne mooy charte réew mi muy constitution bi mu xëtt ko charte bi gën a rëy ci réew mi moom Macky Sall ba pare taxawaat jàkkaarloog nit ñi ne damay def juróom-ñaari at ñuy wax xelam sax di làmb troisième mandat te constitution bi leeroon nañ ne kenn mënu fi am lu plus lu ëpp deux mandats ba tey jii ñu koy gam-gamloo seen biir kooku mën nga koo wóolu. mu woote dialogue politique charte la pacte la 2016 opposition yépp dem wuyu ko mu dem ba ci biir mu nasaxaay teg ko fële xotti charte ba teg ñu ñëw 2019 mu woote waat dialogue national ñun ñëpp ku nekk la nga jàpp nga dem bàyyi ko dem dem taxawu ko maa ngi koy wax tànk madame mii ma ne ko dialogue national boobu bu continuer woon li muy indi réew mi kenn xamul nu mu toll parce que ña fa nekkoon engagé des généraux des experts des premiers ministre des ministres d'État tous des directeurs généraux ñëpp ñëw jàpp ci pour réew mu jëm kanam foofu lañ mën a yem fu mujjee ngelaw mu toog ba mu neex rek kenn xamul pour quelle raison bu fekkoon ne sax daf koy béy justifié wu mais il dit rien à personne il laisse tomber ñu ñëw ci Covid bi àdduna yëpp jaaxle mu woote ses opposants les plus irréductibles muy ñoom Ousmane Sonko ñeneen dem wuy ji ko dem pale àdduna yëpp da ci teg seen bët mu ne danaa def comité de geste de stratégie boo xam ne bii opposition ñëpp ciy bokk ñu xool nan la ñuy gérer Covid bi fu mu mujjee na

nit ñi yaakaar ne ëllëg mën na nekk président de la république ku toll ne Malick Gakou ku toll ne Déthié Fall la ñu représenté nga bund xatal gendarme ak police ñu tànc leen di leen violenté àdduna yëpp di ci teg seen bot les réseaux sociaux pourquoi kay loolu c'est quelque chose de normal qu'on peut est-ce qu'on peut pas possible c'est pas possible maintenant li ñu wax sëriñ bi wax ko ñi ñëpp ñun jàmm lañ bëgg jàmm ku ñu ci woo fekk ñu ci bu fekkee ne mën naa def processus électoral mu aw ci yoon d'accord les autres violences mi ngi fii bërki démb yàggul ci liste électorale yi rek li ñu fi def ñu dem porter plainte au niveau des cours d'appel justice jox ñu dëgg moom mu yore administration waay waay su bëggoon jàmm su bëggoon jàmm sëñ bi xanaa kay du dana leen bu léegi li justice doxal muy sama justice réew nangu naa ko mais dafa dem yebal euh, ministère de l'intérieur am ne ko waxal préfet yi ak sous-préfet yi buñ nangu li nga xam ne yoon Sénégal moo ko tëral kooku bëgg na jàmm il faut ñu wax ko ko mu dégg ko nag ndax ñun loolu gis ne fan ngeen mos a gisee ñu yeewu ne opposition attaqué na nit amul te du am ñu lay garanti du am ba nay tukki doo dégg kenn ku bokk ci ñun ñu ne dem na di def acte de violence c'est pas possible wax naa leen ko sànq ma ne ko j'ai vu une démocratie États-Unis d'Amérique dañu fa dem Seattle ñu def conférence société civile du ñaan autorisation manifester mais lu ñu mujj wax les officiels faites attention dem leen seen yoon ni leen di protéger la ñuy protéger les manifestants c'est ça une démocratie loolu lañu bëgg ci Sénégal pouvoir dafa war di protéger l'opposition parce que ñun amuñ doole juñ xeexee pouvoir dafa war a nekk des fois porte parole de l'opposition parce que am na fu mu jote ñun jotewuñ fa loolu moo indi jàmm ci réew mais bu fekkee ne bu Déthié Fall génnee taxaw ne damay doxantu wala Barthélémy Dias wala Cheikh Tidiane Youm nga ne ko doog fi amee mais lu mu néew deew doole foo jaar mu jaay la bakkanam parce que réew mi nag kenn ma ko loolu rekk fi nekk leneen nekku fi ñu leen di garantir nest nga waxal ñu ko kilifa diine yi suñuy kilifa lañu. na seen xel dal que te ñun coalition yeewu askan wi ku yeewi nit kay doo ni musiba doo ni seytaane n'est-ce pas na seen xel dal lañu waxoon nag ñoom muy suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Muntaxa wax ko suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Babacar Sy yal na yàlla yàgg leen fi may leen wér ci jàmm senegal ci loolu lañ nekk mais nag Macky Sall ku mën a tooñ la da ngeen ko wax bay tooñ bu bayee tooñ rek jàmm moom ci réew mi